asalaamaaleykum man la Maguette Boye maire de la commune de Khombole Khombole waay Khomboloise yëpp ma ngi leen di nuyu ak sénégalais yëpp démb dimanche 24 mars sénégalais yi voté nañ Khombole waay nañ tànn nañ Bassirou Diomaye Diakhar fay comme cinquième président de la République du Sénégal di ko ñaanal li ñu doon yéene ñun paix dans une prospérité partagée jàmm yu ànd ak xéwal gu law gu dugg ci kër gu ci nekk ñoo ngi ñaanal yàlla may ko kattan mu mën koo doxal ci jàmm ak programme bu mu de proposé woon Sénégalais yi yoon ba ñu dindi désigné président amalu Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle élargie ba léegi lépp lu waroon ci jom fulla fayda def nañu ko wax ak Sénégalais yi wax ak komboluwaay waaye yàlla dogal na loolu mooy démocratie c'est la contradiction des intelligences positives maanaam wuute gu ànd ak xel ak dal loolu lañ doxal booba ak léegi ñoo ngi gërëm tous nos politiques et tous les militants et sympathisants yi nga xam ne ni taxawoon nañ pour jëmmal euh, candidature président Amadou Ba di leen xamal ne engagement bi yëpp yëg nañ ko di remercier les électeurs qui ont voté pour nous mais également di ñaanal jàmm bépp électeur boo xam ne ni voté lu ñu woon tey nag man maay meeru xombal boobu ak léegi def na ñaari at ngeen dénkoon ma ko jom ji ñu amoon ci ñaari at yi ngir jëmmal projet yi jom jooju dinañ ko gën a yokk ngir gën a jëmmal lépp loo xam ne diggoon nañ leen ko li àgg dañ leen ko jébbal li ñu tàmbali dañ ko àggale leneen tamit dañ ko sumb pour mën koo àggale ci jàmm mu nekk xombal sur orbite jëriñ bépp xombal waa jom jeeg fulla ji dara ju ci toxu avec toute l'équipe municipale ngir jëmmal leen seen liggéey leneen li damay waxataan ak sunu mbokk leader yi yi ànd ak mbooloo yenn saa yi ñuy jéem a contenir seen mbooloo loolu mooy leader un euh, kuy jiite da ngay fexe ba mbooloo mi ngay àndal nga mën leen contenir ba ñu bañ a yàqal kenn ñetti yoon yi nga xam ne ni dal nañ ko suñu alal bu dul woon ni ñu mën a continuer ñu suñu mbooloo deret mën na fee tuuru moo tax je les invite vivement te di leen baal bu baax du fond de mon cœur képp koo xam ne yàq nga sama alal jéggal nañu la waaye nag ñuy éviter dalante bi du te jur lu dul ay bakkan te bakkan bu rotoy kenn mënu koo delloosi alal bu yàqoo mën nañ ko defaraat te bakkan bu rotee kenn mënu ko delloosi moo tax ñu leen di invité képp ku ji ànd ak mbooloo nga fexe day dalal mbooloo mi ñoo ngi seen sant di leen gërëm di leen ñaanal xéewal bu sax dakk dugg ci kër yu ci nekk ànd ak jàmm jërë ngeen jëf